yam mu leeral ko euh, président Macky sàll ci la bokk euh, waa Petrosen ci lañ bokk euh, waa Aly Ngouille jaay ci la bokk même Karim Wade ci la bokk. Aliou Sall kon benn tomb da bi may wax dama ni. Mhm. kuréel gi mi ngi juddu gannaaw mhm. loolee BBC def ci reportage siiwal ko. moo tax ma bëggoon leeral loolu pour rek bañ ñu def genre relation de cause à effet ñaareel bi. Mhm. mooy mënuñu ñàkk wax ne. Euh, amul jéego bu ñu jot a def waaye dañoo jàpp ne jéego bi procureur euh, def démb jéego pour nelawal askan wi la ndaxte am na loo xam ne moo wër te gaaw mooy benn rapport of nag ñaar rapportu ug e bi nga xam ne président Macky Sall pareegul pour nangu ne rapport boobu am na dañoo jàpp ne ku buggoon lu leer ku bëgg lu gaaw ku bëgg lu wër ñaari rapport yooyu ngay jébbal fi nga ko war a jébbal ñu woo ñi nga xam ne ñoom la ñu waroon woo euh, beneen bi <clears throat> moo di ne am tiitaange sax ne ci ni ñu woowee Aliou Sall démb mën na am lu mu mm, lu mu xajamal ci mbir mi ndaxte xam nga Babacar woo kenn en tant que témoin ak woo kenn en tant que accusé bokkul niñ ko woowee en tant que témoin sax am na lu mu mun yàq ëllëg ci li nga xam ne moom mooy jaar-jaaru enquête bi. ne yéen tamit kenn xamul li ngeen bëgg xam ngeen eh, bi mbir yi tàmbalee ba léegi da ngeen doon wax ne mm. procureur bu bëggee li Sall woolu ko déglu kook yooyu ci dañ ko ci wala déglu tey ñu déglu ko ngeen naan ay eh, mel ni daal da ngeen seen xel eh, tey na ci mbir ba léegi gëmoo leen ni mbir yi dina leer donte déglu nañ ko ban taxawaay lu bëgg réellement xam nga 2012 ak léegi yoon ci Sénégal dafa wane ne dafa jéng dafa ànd ak parparloo bu dee ki nga xam ne Khalifa Sall la ñu def fast track bu dee Karim Wade la ñu def fast track bu dee euh, Omar ñebbe aan la euh, mi nga xam ne moo waxoon quatre mille cinq cent lay jëndee kilo ñebbe ñu toog seetaan Mamour Diallo quatre vingt quatorze milliards ñu toog seetaan loolu c'est un fait donc ñun nekkuñu di sos ne yoon dafa jëng dafa par par lool donte am na ay juge ay magistrats yu indépendant li ñu wax lu leer leer la en tant que aar li ñu bokk dañoo ne rapport u IGE munu fi nekk rapport u rapportu nag munu fi nekk ñu naan dañuy dem defar yeneen l'enquête ñi ñuy fay ak xaalisu askanu Sénégal te ñu def ci ñu ñu jot a def ñaari liggéey yoo xam ne IGE ak OFNAC tënk na ko ñooñu lu ñuy jëriñ donc dañoo jàpp ne bu fekkee dañuy wiiri wiiri boobu yëpp wiiri wiiri wiiri boobu yëpp lenn rek moo ko tax a jóg lëndëmal askan wi nelawal ko waaye lii du enquête boo xam ne dal na suñu xel te am nañ sañ-sañ wax ko ndaxte fi ñu ko teg moo di ne diggoon nañu ndekki justice gisuñu ndekki diggoon nañu añ yoon gisuñu añ gisuñu yoon donc ah li ñuy def mooy xool procureur bi fan la nar a mujjee waaye fi nga xam ne moo wër te wóor mooy rapport IGE bi rapport nag bi. Euh, man naa daal démb Aliou Sall ba mu demee ca dig waru fa woon génnee noonu na xalifa Khalifa ci misaal dese woon ca dig bañ ko fa woloo mais par parloo bi dafa wane loolu yëpp benn bi président Macky Sall dañ koy fàttali bi mu nekkee président assemblée nationale fii la woolu woon Karim Wade lan moo tax bi coow li amee. ba léegi leerlu ci mbiru ANOCI gi. tout à fait lan moo tax depuis 2014 au moins bi coowal pétrole bi ak ressources naturelles yi amee ba tey jii ni kenn mu kenn mënul woo ki nga xam ne moom mooy Aliou Sall ñaareel bi fii la Abdoul mbay lañ ko tere tukki fii la ay njiitu PDS yi nga xam ne ñoo fi nekkoon balaay 2012 ñu tere leen tukki mais Aliou Sall. gis nañ en fait mun na dem dox ay soxla ma nu mu ko neexee ndax lan mooy rakk ci président de la république. li mu nekk est ngeen am ay firnde wala yoon dafa ay firnde yu war a mën tax ñu jàpp ko euh, mbir yi yombewul noonu lan moo war a mën a tax pour yow ñu war ko jàpp ndax ci wàllum yoon dafa am ay prévu leer. ñun waxu ñun waxuñu ñun waxuñu nañ ko jàpp. de la même manière que bi président Macky Sall doon woolu Karim Wade assemblée nationale amuloon ay firnde yu leer donc dañoo jàpp ne. am na loo xam ne waroon nañ ko bu def ak Aliou sàll loo xam ne buñ ko defee du wone ne par parlo ak jéng am na jéng bi dafa fës par parlo bi dafa ne fàng lii mooy wax ci moo tax nag ñuy wéy di woo askan wi ñu mobiliser wu ndaxte xam nga Babacar ak Ndiogu xam nga coow li mooy lan mooy mënuñu nekk ci réew moo xam ne at bu nekk am na vingt quatre mille personnes yuy am cataracte fukki junni ci ñoom maanaam plus de dix mille mujjee gumba ndaxte amuñu ophtalmologue yu doy ñu naan dañuy foowee suñu am-am lii mooy coow li mënuñu nekk résultat baccalauréat mu ngi daanu noo ñetti at yii passé xam nga lan moo nekkoon résultat yi téeméeru candidat bu nekk juróom benn fukk ak juróom yi dañuy lajj ndaxte amuñu jàngalekat yu doy kenn formé wu leen yu doy amuñu classe yu doy ñu ne dañuy foowee dañuy caaxaanee d'accord suñu am-am mu am ñoo xam ne dañu teg ay golo yoo xam ne suñu ñàkk ak suñu deret moom moo war a siim seen cere loolu mooy coow li coow li du coow coowal Aliou Sall coow li coowal débat la boo xam ne dañoo ne Sénégal mënul yeewoo ci zircon di fanaan ci pétrole yeewoo ci wurus di fanaan ci phosphate bokk ci benn ci ñaar fukki askan ak juróom yi gën a ndóol ci àddina bi. pétrole bi génnagul nag itam. pétrole bi génnagul waaye li ci gën a yéeme mooy am na si ñoo xam ne seen cere commencé nañ ko siim ak pétrole bi génneegul loolu mooy li leer. ci ci ci sa ci say wax sax da nga ni weesu na Macky Sall da ngaa jàpp ni bu dee eh, am na lu jot ñor bañ koy macc Macky Sall màcc na ci ci loolu loolu ci ci waxin daal noonu noonu nga gisee yëfi yow. Macky Sall am na ci responsabilité bu mag a mag ndaxte benn sama xel mënul nangu mu wax waa IGE le 30 mai 2012 ñu def ay enquête waa IGE jox résultat enquêtes yi octobre mois de juin euh, euh, Macky président Macky Sall jël dogal yi mu jël ak Franck Timis ba IGE naan ko mais yow président Macky Sall looy daw bay faxa salu loolu moo tax président Macky Sall nangoogul gis li nga xam ne moom mooy rapport IGE président euh, président Macky Sall am na si responsabilité bu mag a mag euh, xëy na sax. Euh, xam naa ne dina am ay doomu Sénégal yoo xam ne dinañ laaj seen bopp mais est-ce que sax Franck Timis bokkul ci ñi financé campagne président Macky Sall ci élection euh, ndaxte am na yoo xam ne daal wax dëgg yàlla euh, dafa teexal dafa doy waar. mais sànq ci responsabilité yaa ngi wax sànq wax nga Macky Sall wax nga Karim Wade ñoom ñu am nañ responsabilité mais am na tamit ñeneen Abdoul Mbaye premier ministre jamono jooju moo consigné nekk comme premier ministre que aar la bokk la ñu bokk si yéen nañ bokk que ngeen doo responsabilité ci mbir mi. benn wala ñaar laa ci wax benn bi bu ba bu ma tuddee ne rapport IG bi tudd na sax euh, Karim Wade Karim Wade mu ngi bokk PDS PDS ñëw na bokk aar li nu bokk. <laughs> bu fekkoon par par parloo moo ñu taxoon jóg kon du ma ci tudd Karim Wade du ma fàttali ne rapport IGE bi tudd na Karim Wade parce que Karim Wade PDS la bokk te tey jii nii euh, am nañ mbégte PDS bokk ci aar li nu bokk. Abdoul Mbaye ak Thierno Alassane Sall ñoom ñëpp dama bëggoon wax ne benn atte bi la ni may attee. Karim Wade noonu laay at Thierno Alassane Sall. li woo ci ci biir aar lañu bokk am nañ ci responsabilité pour yow. ñoom ñëpp am nañ ci responsabilité. ndax am nañ ci responsabilité loolu ay enquêtes yi wër te wóor moo koy wane ñun li ñu wax mooy. lépp lu jëm ci wàllu suñu ressource naturel rawatina coowal pétrole ak gaz bi fi mu dooree ba fi ñu toll nii nañ ko enquête même bu dee Guy Marius Sagna wala baayam daf ci takk nañ ko leeral donc ñun ci aar li nu bokk nekkuñu ci parparloo wala jëng naan dañuy utal président Macky Sall ab Aliou Sall comme président Ablaye Wade ni mu amee woon Karim Wade déedéet nekkuñu ci approche vindicative maanaam di fayonto mbir mi mooy ah. amoon na fii juróom benn junni abri provisoire lan la ñu mun saafara ak pétrole bi ak gaz bi loolu buñ ko saytu woon ci ren ci beneen anam ak phosphate fi ak leneen ak leneen duñ fi am juróom benn junni abri provisoire lii mooy coow li boo jàppee ni Macky Sall da cee euh, am lu ciy pexe ci sa gis-gis. li ciy pexe mooy président Macky Sall ak ñi àndal ñoo war dalal xelu askanu Sénégal def li nga xam ne. Euh, moom moom mun dalal seen xel bi ci njëkk wax naa ko fi sànq au lieu ñuy mel ni dañuy invité Aliou Sall mun naan si attaaya wala seetaan match football ci dikk rapport yi nga xam ne ay kàngam ñoo ko def du Thierno Alassane sàll du Abdoul mbay muy nag ak IGE rapport yooyu nañ ko génnee nañ ko jëfandikoo ñi nga xam ne seen tur wala seen jëfin euh, dañ ko mandargal ci ñaari rapport yooyu ñu def ci enquête mu leer nañ loolu moom mun dalal xelu askanu Sénégal beneen bi mooy itam euh, ñu xool naka la ñuy waxtaanee taxawal ay jumtuwaay yoo xam ne coow dootul amati xiiroo ak. ngaayoo mais loolu am na ndax li ñuy wax cos pétrogaz président nee na société civile ak opposition bi dañ ciy dugg. Euh, mënuñu ñàkk wax ne cos pétrogaz boobu euh, nekkul jéego nekk na jéego bu am solo waaye gis nga Babacar bu ma xoolee cos pétrogaz boobu xam nga lan la may fàttali dafa may fàttali conseil d'administration yi nekk ci suñu l'hôpital est-ce que xam nga ne bépp hôpital bu nekk Sénégal am na conseil d'administration conseil d'administration yooyu euh, ban njëriñ la am la santé est en crise hôpitaux yi dañoo feebar boo xoolee cos pétrogaz boobu ci ñaar fukki membre mais au moins loolu bu ñu leen ci woowee ngeen dem dugg ca. ci da ngeen mën a teg bët xëy na yëf yi ni muy ni muy tëroo euh, bu ngeen ci amee kàddu ngeen yëkkati ko ca fa ngeen ko war a waxee. ba tey jii nii waxuguma ndax aar li nu bokk d'accord na am déet ci bokk ci damay leeral benn cos pétrogaz boobu am na ñaar fukki membre euh, ak juróom xam nga ñaar fukki membre ak juróom yooyu ñaata lañ ci fal ñett mooy kan représentant HCCT représentant assemblée nationale représentant. représentant conseil économique social et environnemental te am na si ñaar ñoo xam ne seen président sax dañ leen nome waa léegi yow ñaar fukki membre ak juróom ci cos pétrogaz ñëpp ñu nome leen ah, ban njëriñ lañ am yow am nga yaakaar ne loolu dina contrôler dina mën seet seetantal bu mucc ayib euh, li nga xam ne moom mooy am amu askanu Sénégal loolu mooy wax ji ba nga xam ne bu dee aar li nu bokk wala yeneen kuréel ci société civile ak. ci opposition dañoo jël dogal bokk ci loolu li ma bëgg a wane déjà mooy cos pétrogaz nu mu bindoo néewal na leen doole déjà cos pétrogaz nu mu bindoo nga au moins boo euh, demee dugg ci biir di nga xam la fa nekk bu amee lu nakal su dul noonu di nga ko mën a xam bu bokkee koy dénoncé nga dénoncé ko au moins jéego la ndax di nga mën a xam ndax leer na wala leerul mbir mooy li ma wax aar li nu bokk waxagul ndax. day dàkk wala day sip wala day bokk ci cos pétrogaz buñ ko saisiree aar li nu bokk ci démocratie dina ci waxtaan biiram xool lan mooy position am mais déjà man Guy Marius Sagna damay wax askan wi ne buñ ñu nelawal ci cos pétrogaz bu fekkoon ay conseil d'administration wala ay kuréel dina ñoŋal ab doxalin kon hôpitaux yi duñu feebar hôpitaux yi dafa am ay représentant conseil d' administration dama wax ne cos pétrogaz boobu mu ngi bindoo ni conseil d' administration yi nekk ci suñu bopp l'hôpital yi te gis nañu suñu l'hôpital yi dañoo dem hôpital ndaxte dañoo feebar donc dama dama dama ragal bi ma njëkkee gis parce que cos pétrogaz bi dafa ma fàttali conseil d' administration l'hôpital yi maanaam bu ñu moytuwul déjà sax suñu en fait pétrole beeg gaz bi dafa nekk si jàngoro ragal naa ne ak cos bi dina gën a feebar yéen a ngi faral di tudd Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ni waxtu wi moo nekk ministre intérieur li tax ñu ko ci tudd ci coowal pétrole gi mooy nekkoon ministre euh, énergie ak ak mine waaye moom ba léegi kenn déggu ci lu ngeen bëgg ci moom. Euh, li ñu bëgg ci moom aar li nu bokk euh, waxagu ko donc mënuma wax position wu aar li nu bokk. ci sa gis-gis. en attendant. Aly Ngouille Ndiaye ministre Aly Ngouille Ndiaye effectivement moom moo bindoon rapport bi ñuy naan rapport bi ay la dara du ci dëgg kooku nag mënul bind rapport boo xam ne moo tax président de la république jël dogal bu bon bon ba pare ñu toog di seetaan Aly Ngouille Ndiaye dama jàpp ne bu nekkoon gor war na démissionner fi nga xam ne moom mooy ministère bi mu nekk ndaxte mënuñu am kóolute ci koo xam ne turam dafa bokk ci ñu bind rapport de présentation boo xam ne moo tax président Macky Sall jël dogal bu euh, ñàkk ànd ak njëriñu askanu Sénégal donc Aly Ngouille Ndiaye waroon na démissionné benn ñaareel bi mu démissionné mu ñàkk démissionné war war nañ ko woo mu wax lan moo tax mu inventé rapport boobu lan moo tax rapport boobu di wax wax yoo xam ne du dëgg amul ba tax président de la République signé li mu signé ak Timis logique pour logique ma dellu si ci li ñu waxoon sànq euh, Abdoul mbay ancien premier ministre moom bu boobaa moom lan mooy doon atteem bu fekkee ne Aly Ngouille Ndiaye dafa war a démissionné ndax mu taxawaayam premier lan moo nar a euh, nekk taxawaayam moom lan ñu war a def ci moom Abdoul ki nga xam ne moom mooy Abdoul Mbaye war nañ ko ko mën a déglu pour mu wax wax yi nga xam ne yàgg na ko wax mu gën ko xootal mu gën ko ñoŋal ñu xam ndax njumte la même bu dee njumte ñu xool lan la ci yoon wax waaye. Ah, bu dee moom daal njumte la bu ne ñee dañu wax bu dee ñu njumte la conséquent wu leen quoi non li ma wax logique logique wu leen njumte la ñun ñee. ma wax lu leer naññ la dama ne Aly Ngouille Ndiaye benn waroon na mun démissionner ñaar ñu déglu ko mu wax ñu lan moo tax rapport boobu am moom mu moom mu wax. ndax moom responsabilité ndax njumte la ñu kenn xamul te bu dee ñee nga ne def nañu ñee njumte la ñee dañoo def ñoo ko tey. déedéet mel ne ñàkk a yamal li ma wax mooy ndax moo ko tey wala teyu ko dama ne li am li wërte wóor mooy rapport boobu yaa ngi ko wutal circonstance atténuante. non non non te bu dee ñëlee nga fëgg. Euh, xam nga lan la Babacar. bu fekkee d'accord li nga bëgg mooy wane ne sama kàddu dafa jëng man sama baat ca kaw sama sama kàddu ak kàddu aar li nu bokk jëngul bu jëngoon kon dañuy dug dañuy judd rek tudd Aliou Sall du ngeen gis benn conférence de presse benn këyitu aar bokk boo xam ne tudd nañ Aliou Sall moo tax démission Aliou Sall ñun liñ ci wax bariwul dañoo ne nous prenons acte mais dama ne ku jëngoon da ngay ñëw rek di joxañ ki nga xam ne moom mooy Aliou Sall Aliou Sall taxu ñaa jóg lu tuuti la même Aly Ngouille Ndiaye dama jàpp ne wax ji Aly Ngouille Ndiaye sax lu tuuti la waaye dafa fekk rek ne mënuñu nekk à un tel niveau de responsabilité ba pare d'accord ñu bàyyi mbir yi demee noonu dama ne askanu Sénégal dafa sonn dafa damm dafa tàyyi ñu toog seetaan zircon beeg phosphate beeg yooyu ñu koy saax saaxee donc Aly Ngouille Ndiaye war nañ ko mën a déglu mu wax waxam. ñu xool li nga xam ne mbir mi noonu la demee en fonction de li mu wax ñu xool li nga xam ne moom la si yoon wax muy Aly Ngouille Ndiaye muy keneen ak keneen loolu mooy sama taxawaay loolu mooy sama kàddu ci wax joojule mm-hmm. euh, yéen a ngi waajal manifester ca Géejawaay ci semaine bi fa Aliou Sall nekkee maire dum cokkaasa ah déedéet Euh, département département bu Géejawaay ci Sénégal la bokk te gis ngeen ne bi euh, bi aar li nu bokk jóge askanu Sénégal moo def aar li nu bokk moomeelu boppam bés bu nekk ngeen gis ci réseaux sociaux yi aar li nu bokk Canada juddu na aar li nu bokk Espagne juddu na aar li nu bokk Ngeexoox juddu na noonu la aar li nu bokk Géejawaay juddoo donc euh, Géejawaay ci ci Sénégal la bokk benn ñaareel bi bu dee tapas rek tapas mënul weesu aar li nu bokk juddu sa sàmm sàmm suñu réew juddu te ñu ne pat ah mais tapas mënul weesu euh, ñuy manifester ajjuma sàmm suñu réew di euh, dugal manifester pour ajjuma ba ñu interdire suñu manifestation ñu jëlee suñu manifestation jëlee ko ci ajjuma bi yóbbu ko samedi donc ñu nekkuñu ci tapas nekkuñu ci wuyu tapas. Mm-hmm. mbaa duñ la jàppaat. Euh, loolu du wax ji wax ji mooy mbaa préfet bu géejawaay du jalgati constitution ndaxte préfet géejawaay ak bépp préfet ñaar moo leen war respecter le droit constitutionnel de manifester bu askanu Sénégal wala ñàkk ko respecter. loolu mooy wax ci non da nga bëgg affaire jàpp même bu la policier yi xoolul sax nga. ñaawal leen ba jël la yóbbu. non loolu musul am loolu foog naa ne yow mi yaay tappaas Babacar Fall <laughs> euh, li am mooy dañoo nekk ci réew moo xam ne euh, ci ñeenti manifestation aar li nu bokk ñaari dañ ko tere. yeneen ñaar yi euh, dañ ko autorisé bi ci mujj ñetti waxtu balaay manifestation bi loolu moo fi am euh, dañoo nekk ci réew moo xam ne euh, ñi nga xam ne ñoo sës ci Aliou Sall mën nañ manifester palais présidentiel te dara du si dikk mën nañ manifester mairie Guédiawaye te dara du te dara du si dikk te ñu mel ni man ñi nga xam ne nooteel bi nekk ci Afrique ak nooteel bi nekk ci réew moo leen tax a jóg ñooñu moom nañu fexe ba jàpp leen nañu fexe ba buntu xatal leen nañu fexe ba museler leen loolu nag duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan ëllëg ndaxte du ñu nangu ñu luubal suñu alal ba pare luubal suñu luubal suñu ay sañ-sañ ñu luubal suñu alal ba pare ne du ngeen ko fi joytu du ngeen ko fi naqarlu du ngeen ko fi méttitlu loolu nag du fi amee tey du fi amee ëllëg. Mm-hmm. mais ar li ñu bokk ni nga ko waxee wàllum pétrole ak leeral alal li ñëpp bokk euh, mais est-ce tamit wàllum politique tamit fës ci lool demul ba nga xamante ne euh, xëy na day mel kuréel goo xamante ne xeex bi opposition bi di xeex jamono ji moom ngeen nekk di xeex bu ñu xoolee taxawaay bi ngeen taxaw ak euh, ni ngeen di gisee nguur gi est que du ne xeex opposition bi ngeen di xeex jamono ji yéen. est-ce que Baba Aïdara bi wax ay at ngi mbiru pétrole est-ce mbiru politique la woon est-ce que Birahim Seck mun nga ko. soupçonné mais yéen seen kuréel da ngeen bokk ak ay waa politique yu bëri ci bokk ngeen ànd ak ñoom. mais est-ce que mbiru réew mi daay bu amee da ngay naan doo jël euh, ndox bu jógee ci diw ndaxte dafa bokk ci parti politique te daay am wax dëgg yàlla loolu pour man wax bu yenuwul maanaa la dañoo jàpp ne réew mi tabax ko tabaxaat ko doomu Sénégal yépp am nañ ci wàll ak fu ñu munti jógee ak fu ñu munti bokk li am mooy. ndax sart yi nga xam ne ci la ñu kuréeloo sart yooyu euh, maanaam dëppoo nag démocratie mucc na ayib am déet ndax par parloo mu ngi ci am déet. Guy Marius Sagna jaajëf ci waxtaan wi.